assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin ngi gën a sant sunu borom bu baax noo sant sunu borom bu baax moom mi bi boole gi munu booleeg sëriñ bi di sant sëriñ bi di sant sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy sunu léppi tey ëllëg moom mi nga xam ne mooy sunu léppi tey ak ëllëg lu mot a wax wax na ko ñu xam ne itam lu mat a wax wax na ko moom sëriñ bi lu mat a def def na ko lu mat a def def na ko lu mat a digle digle na ko lu mat a digle digle na ko bàyyiwul dara bàyyiwul dara ba tax na ba tax na waxuma sax jaamu sunu borom mi nga xam ni moom rek moom rek la bëgg ci noonu waxuma sax jaamu sunu borom jaamu sunu borom mi nga xam ne loolu rek la bëgg ci noonu waxuma na liggéeyal ko liggéey bu sel bi nga xam ne mooy suñu njëriñal tey ak ëllëg waxuma na liggéeyal ko liggéey bu sel boo xam ne mooy suñu njëriñul tey ak ëllëg waaye dañ ko ameel cant gu rëy rëy waaye dañ koo ameel cant gu rëy rëy mu ne su ko wax ci làmmiñ mu ne su koo wax ci làmmiñ ci jëf rek lañ ko mën a euh, lañ ko mën a wane ko sunu kem kàttan te jëf rek lan ko mën a wane ci sem sunu kem kàttan ah, alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin liggéeyam bu rëy bii liggéeyam bu rëy bii sant nañ baax a baax sant nañ ci bu baax a baax ndax lépp mooma ndax lépp mooma dafa fekk na nag dafa fekk na nag doomu aadama dafa doyadi dafa doyadi ba tax mu mu mel ne dafa am dafa dafa xaaj dafa dafa xaaj mbooloo mi dafa xaaj ba tax mu mel ni mbooloo mi dafa xaaj am ñu farlu lool am ca nam ko bëggee. am ñu farlu lool ca nam ko bëggee. am ñu sàggan lool ca nam ko bëggee. am ñu sàggan lool ca nam ko bëggee. am ñu xam lool ak jubloom. am ñu xam lool ak jubloom. am ñoo xam ni am nañ ci kumpa lool. am ñoo xam ne am nañ ci kumpa lool. loolu lépp nag. Mhm. loolu lépp nag. farloog sàggan rek fi nekk. farloog sàggan rek moo fi ne. Euh, euh, moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg. moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg. yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lay war a nekk. yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lan war a nekk. lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla. lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla. ak liggéeyal ko liggéeyal ci lépp lu baax. ak liggéeyal ko it ci lépp lu baax. Eh, adduna sax naka jekk lii ci metti eh, tiital nu ci mos sax naka jekk lii nu tiit lii nu ci metti tiital nu sax mosu cee jóg. muy càggante gu ëpp gi muy càggante gu ëpp gi mosu fee jóg mosu fee jóg waaye nag rawatina suñ jamono jii waaye rawatina nag suñ jamono jii dafa mel ne li ëpp ci mbooloo mi dafa mel ni li ëpp ci mbooloo mi àdduna fàbbi na leen àdduna fàbbi na leen ba talatuñu sunu borom ba talatuñu sunu boroom talatuñu it alaaxira talatuñu it alaaxira loolu yaatu na lool nee na loolu yaatu na lool waaye li war a gën a sant sëriñ bi waaye li ñu war a gën a sant sëriñ bi dëkkam bu sell bi dëkkam bu sell bii am na ci ñoo xam ne suñu boom euh, may na leen tawféex ju am na ci ñoo xam ne suñ boroom may na leen tawféex ju rëy rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji ak ñi taqoog ñoom ak ñi taqoog ñoom duñ teqalikoog ñoom wenn waxtu duñ te duñ teqalikoog ñoom wenn waxtu lépp ngir xam seen warteef lépp ngir xam seen warteef ak xam jub bëggug sëriñ bi. ak xam bëggug sëriñ bi. ñu nekk ci diggante boobu. ñu nekk ci diggante boobu. di jullit yu mat. di jullit yu mat. di taalibe yu mat. di taalibe yu mat. loolu fa tabaarakallaahu. loolu fa tabaarakallaahu. am na fi. am na fi. waaye nag. waaye nag. càggante gi moom. càggante gi moom. yaatu na lool. yaatu na lool. te doyoo dig doomu aadama dëgg la. te doyoo dig doomu aadama dëgg la. waaye càggante gi nag moo ëpp. waaye càggante gi nag moo ëpp. sëñ bi moom lu nit xamadi xamadi waaye sëriñ bi moom lu xam ne euh, biñ ko gisee bañ ko noppee gis. xam ne biñ ko gisee biñ ko gisee ba noppi koo gis. tëlu fi leneen lu dul boromam. tëlu fi leneen lu dul boromam. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. mu nekk seen diggante. mu ne seen diggante. bawul dara lu baax. lu dara lu baax. lépp. def na ko. def na ko. luñ mën teg bët. luñ mën a teg bët. luñ teg bët. ak luñ mënta teg bët. waaye luy luy lu baax. waaye luy tegtale lu baax. sëriñ bi def na ko. sëriñ bi def na ko. yërëm gi mu yërëm jaam yi itam. yërëm gi mu yërëm jaam yi itam. wane na yoon wa nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca tax na wane na yoon wi nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca mu rek fonk suñ diine mooy fonk suñ diine fonk suñu taalibe rek fonk suñu taalibe itam fonk suñu taalibe itam ndax diine ji moom fee la ko fekk ndax diine ji moom fee la ko fekk waaye bi mu ñëwee itam waaye bi mu ñëwee itam. la ca war lépp def na ko. la ca war lépp def na ko. taalibe gi moom. taalibe gi moom. naka jekk suñu yoon yàlla mi ngi fi woon. naka jekk suñu yàlla mi ngi fi woon. waaye nag. waaye nag. moo taxaw fii. moo taxaw fii. fa ñu ko gisee rek lañ lañ tàmbalee gis. fa ñoo ko gisee rek lañu ñu tàmbalee gis. taxawaayam bi mu nam ma taxawal boroomam. taxawaay bi mu nam ma taxawal boroomam. ca loolee la nekk. ca loolee la nekk. jaar fa mu war a jaar fépp. jaar fa mu war a jaar fépp. def la war a def lépp. def la mu war a def lépp. wàccoo naag waa waa suuf. wàccoo naag waa suuf. wàccoo naag waa kaw. wàccoo naag waa kaw. lépp it. lépp it ci boromam rek. ci boromam kon nanu góorgóorlu bu baax. kon nanu góorgóorlu bu baax. delloo delloo sunuy xel. delloo sunuy xel. gën a yëngal sunuy xol. gën a yëngal sunuy xol. jëme ko ci li mu nu fi bàyyil jëme ko jëme ko ci fi bàyyil diine ji rek la nu fi bàyyil diine ji rek la nu fi bàyyil ak liggéeyu boppam bu rëy bi ak liggéeyu boppam bu rëy nga xam ne ak taalibe ci ci la jóge bi nga xam ne ak taalibe ci la jóge kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax wattandiku càggante wattandiku càggante adduna fàbbi na fàbbi nanu adduna fàbbi nanu ba talatum lu dul moom ba talatum lu dul moom te lanu jig dey te lanu dey lanu jig lanu jig dey mooy jaamu yàlla. mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla rek a jig. yàlla rek a nu jig. waaye sàggane sa diine. waaye sàggane sa diine. du la yóbbu ci jaamu yàlla. du la yóbbu ci jaamu yàlla. te du la bàyyeeg neen itam. te du la bàyyeeg neen itam. ndax ginnaaw tëlatuñu sunu borom tëlatuñu alaaxira gën jëm ginnaaw talatunu sunu borom talatunu alaaxira gënu jëm ngir àdduna ji rek ngir àdduna ji rek te day te day xam ki xamal ñi xam te day ki xamal ñi xam ñi xam-xam lam leen xamal. ñi xam-xam lam leen xamal. dégg nañ wax ba. dégg nañ wax ba. adduna bu fekkoonte ne suñ borom da ko yemale woon ak laafu yoo. su adduna bu fekkoon ne sun borom da ko yemale ak laafu yoo. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon adduna amu jërul dara. kon adduna jërul dara. te nekk ci li nga war a nekk. te ci li nga war a nekk. du yàq dara ci li ñu yem fañ ñu yemloo. du yàq dara ci ñu yem ci fañ yem loo noo ngi lekk ñoo ngi naan. noo mm-hmm. ngi lekk noo ngi naan ngi sol mbubb. noo ngi sol mbubb. noo ngi nekk ci kër. noo ngi nekk ci ay kër. ay xéewal yu bari. ak ak ay xéewal yu bari. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. ndimbal rek la war a doon. ndimbal rekk la war a doon. ñu jublu su su su sunuy xel. ñu jublu sunuy xel. ak sunuy xol. ak sunuy xol. mu nekk mu nekk ci nun yitte. mu nekk ci nun yitte. góorgóorlu ba lu ba bañ a yittewoo lu dul yàlla. lu nu du nu doyadi doyadi. lu nu doyadi doyadi. mën na noo yittewoo sunu borom. mën na noo yittewoo sunu borom. jiital ko ci sunu yitte. jiital ko ci sunu yitte. lañ mu ayalul lañ mu ayalul lañ nu ayalul sañ sañ nañ koo jëfandikoo sañ nañ koo jëfandikoo gan gu rëy ngi nii nee gan gu rëy ngi nii gu bari njariñ gu bari ay njariñ gu sëriñ bi fonk gu sëriñ bi fonk kon nanu góorgóorlu kon nanu góorgóorlu fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñooñ sëriñ bi ñooñ sëriñ bi wax ji taxu leen a jóg wax ji taxu leen a jóg ndax ñoom ñu ngi ci li nekk ci li nekk ndax ñoom ñu ngi ci li ñu nekk taluñu àdduna taluñu àdduna ngir ngir xalaat seen diggante seen boroom ngir xalaat seen diggante seen boroom ak jaamu ko seen kem kàttan. ak jaamu ko seen kem kàttan. kon kenn ku ne. kon kenn ku xam nga sa bopp. xam nga sa bopp. bu càggante nekkee ci yow. bu càggante nekkee ci yow. xam nga ko. xam nga ko. bu farlu nekkee ci yow. bu farlu nekkee ci yow. xam nga ko xam nga ko. te ñi farlu. te ñi farlu. ñu def xeeb nañ ko. lu ñu def xeeb nañ ko. seen diggante ak seen borom seen diggante seen borom. ñi sàggan nag. ñi sàggan nag. càggante càggante gi day gën a day gën a yokk rek. càggante gi day gën a yokk rek. boo xamee ne taloo lu dul sa bopp. boo xamee ne taloo lu dul sa bopp. taloo lu dul àdduna. taloo lu dul àdduna. ah loolu bu dee mbooloo. loolu de bu dee mbooloo. ñu ànd ci càggante. ñu ànd ci càggante. lu leen dal ñoo ko teg seen bopp. leen dal ñoo ko teg seen bopp. bu dee kenn par kenn. bu dee kenn par kenn. kenn ku ne. kenn ku ne. la ko naqari ci boppam. la ko naqari ci boppam. càggante génnu ca. càggante càggante génnu ca. ku jublu sëriñ bi. ku jublu sëriñ bi. càggante dana day jeex ci yow. càggante day jeex ci yow. am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex waaye nekkal ko ci lim bëgg nag ko ci li bëgg nag mooy tawféex ju rëy ja mooy tawféex ju rëy ja alhamdulilah eh, nañ góorgóorlu bu baax nañ góorgóorlu bu baax suñ gan gu tedd gi suñ gan gu tedd gi nu nu nu nu gaaw nu nu góorgóorlu gaawtu ci nu gaawtu ci ba delloo suñuy xel ba delloo suñuy xel yëngal suñuy xol yëngal suñuy xol suñu yitte jëpp suñu yitte jëpp ñu gàttandoo ko suñu kem kàttan ñu gàttandoo ko ko suñu kem kàttan bu ñu góorgóorloo bu ñu góorgóorloo lu ñu gën a góorgóorlu lu ñu gën a góorgóorlu lépp di gën a yomb lépp di gën a yomb lépp di gën a barkeel. lépp di gën a barkeel. waaye lu nu gën a sàggan. waaye lu nu gën a sàggan. jafe-jafe yi ñuy wax. jafe-jafe yi ñuy wax. muy baat bu xew ci jamono ji. muy baat bu xew ci jamono ji. dara andiwu ko. dara andiwu ko. lu ñàkk nekk ci li war a nekk rek. ñàkk a nekk ci li nga war a nekk rek. njàmbar li. njàmbat li matu ko matu ko lu nu dal loolu dal noo ko teg suñ bopp noo ko teg suñu bopp téere yi bañ te maam Adama ba léegi mi ngi mu doon wàcc na ba ci ba ci alxuraan wàcc na ba lépp lépp luy tax mucc lépp luy taxa a mucc mi ngi ci mi ngi ci lépp luy tax a raw lépp luy tax a raw mi ngi ci mi ngi ci lépp luy tax a texe lépp luy tax a texe mi ngi ci mi ngi ci lépp luy yóbbu àjjana nit lépp luy yóbbu mi ngi ci mi ngi ci kon nan góorgóorlu kon naan góor wattandi ko ak càggante wattandi ko ak càggante kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na def sam kem kàttanam na def kem kàttanam ngëm gi ngëm gi ak yitte ji ak yitte ak jëf ji ak jëf ji bu ci kenn xeeb bu ci kenn xeeb dara lu mu doye di ci nekk suñu kem kàttan nan ci nekk suñu kem kàttan ngàttanum ndimbal mën nañu caa fekk ngàttanum ndimbal mën nañu caa fekk waaye dem ba nga xam ne waaye dem ba nga xam ne tëlatoo sa borom. tëlatoo sa borom. tëlatoo alaaxira. tëlatoo alaaxira. ah loolu jërul njàmbat. nee na lool jërul njàmbat. ndax njàmbat li du waay du jëriñ dara. ndax njàmbat li du jëriñ dara. te day dolli joote rek. te day dolli jafe-jafe rek. jafe-jafe yi moom. siw na eh, eh, xew na lool fi mu ne. jafe-jafe yi moom xew na lool. jafe-jafe nag dara andi ko lul càggante. jafe-jafe nag dara andi ko lul càggante. ku ku ku ku danaa di wax ne ku gëm yàlla. dañuy wax ne ku gëm yàlla. gëm alaaxira. gëm alaaxira. il faut que nga soppi saw doxin. il faut nga soppi saw doxin. soppi saw doxin nag. soppi saw doxin nag. nga góorgóorlu. mooy góorgóorlu. jéem a xam li yàlla digle. jéem a xam li yàlla digle. jéem a xam li yàlla tere. jéem a xam li yàlla tere. nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan. nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu bon. jéem a xam lu bon. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax di jéem lu baax waxtu wu nekk. di jéem lu baax waxtu wu nekk. xam lu bon. xam lu bon. di ko jéem a daw sa sa sa xelu bakkan. te di ko jéem a daw sa xelu bakkan. loolu jafewul. loolu jafewul. xanaa ñàkk xam rek ñàkk xanaa ñàkk xam rek waaye ku ku ci mos loolu waaye ku ci mos loolu te muy dëgg ci yow te dëgg ci yow dootoo kuy wax ay jafe-jafe dootoo kuy wax ay jafe-jafe dootoo kuy jàmbat itam dootoo kuy jàmbat itam ndax da xam ni am na lu xew ci yow ndax da xam ne am na lu xew ci yow loo xam ne loo xam ne mbàllan rek nga ciy soxla. mbàllan rek nga ciy soxla. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan la bu baax. ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci loolu. ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci loolu. te wër sëriñ bi nii. te wër sëriñ bi nii. nekk ci li lim leen nekk loo. te nekk ci lim leen nekk loo. ak ñi ñi ci ànd ak ñoom. ak ñi ci ànd ak ñoom. ñooñu di du jot a dégg ku ku leen di soññ. nee na ñooñu duñ jot a dégg ko leen di soññ. waxtu wu ne ña soññ seen bopp. waxtu wu ne ña seen bopp. waaye nag. waaye nag. jaam ñi jaam ñi moom. yërëmtu la laaj. yërëmtalu la laaj. nu war di yërëmtu. di yërëmtalu. di yërëme di yërëme di yërëme di di laabiire di soññe kenn ku nekk ci loolu kenn ku nekk ci loolu jàllale ko ci sa sa mbokkum jullit wala sa mbokkum ak sa mbokkum ko ci sa mbokkum jullit wala sa mbokkum taalibe ndax doyadig doomu aadama ndax doyadig doomu aadama boo ànd ak càggante boo ànd ak càggante kenn du xam fu mu jëmee boroom kenn du xam fu mu xam rekk fi ne ñàkk xam rekk fi ne waaye def sa xel ci sa boroom waaye def sa xel ci sa boroom mbaa nga bàyyi ko xel mbaa nga bàyyi ko xel te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow ngay góorgóorlu bu baax ngay góorgóorlu bu baax doo doo doo jàmbat doo doo jàmbat doo jàmbat dara. doo jàmbat dara. ndax tal ga xam ne moom nga tal sa bopp sa borom. ndax tal ga xam ne moom nga tal sa borom. moo tax moo tax doo gis lu la jaral jàmbat. nee na moo tax doo gis lu la jaral jàmbat. ndax doo ko tal. ndax doo ko tal. yittewoo sa borom rek. yittewoo sa borom rek. ne ci lim digle. ne ci lim digle. daw lim tere. daw lim tere. damuy dëgg. te dëgg. na sa na dàkk. na sax dàkk. day dolli ko rek. day dolli ko rek. diir bu gàtt. diir bu gàtt. nga am noflaay. nga yëg am noflaay. diir boo si gàtt nga ci dool moo ciy dolli ko. waaw diir bu gàtt. loolu moo ciy dollee ko. mooy mooy mooy moom sa bopp. mooy moom sa bopp. ci gàllankoor yi. ci gàllankoor yi. teq-teq yi teq-teq yi yépp di àdduna lépp di àdduna rek waaye ku soobu yoonu yàlla waaye ku soobu yoonu yàlla te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow boo góorgóorloo tuuti boo tuuti da nga gis loo xam ne dara dootu la jaral dëpp da gis loo xam ne lii dara dootu la jaral dëpp kon nan góorgóorlu rek kon nan góorgóorlu rek ah nga xam ne dañoo jéemul dara ñi nga xam ne dañoo jéemul dara ñooñu ñooñu ñoom ñoo ñoo ñoom la ñëpp ñoom ñoo jar wax. ñooñu ñoo jar wax. ndax ki ki kii jéem te muy dëgg. ndax kii jéem te muy dëgg. lu mu gën a dox. lu mu gën a dox. gën a xam ne mi ngi mi ngi ci yoonu gindiku. gën a xam ne mi ngi ci yoonu gindiku. lu mu gën a dox. lu mu gën a dox. gën a tënkiku. gën a tënkiku. lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a am jàmm gën a am jàmm lu mu gën a dox lu mu gën a dox gën a yëg ak texe gën a yëg ak texe lu mu gën a dox lu mu gën a dox dana yëg di dana yëg dana yëg ak mucc dana yëg ak mucc mucc ci mucc ci mucc ci gàllankoor yi mucc ci gàllankoor yi ba mën nekk ci la nga war a nekk ba mën a nekk ci la nga war a nekk loolu. nee loolu. loolu la. loolu rek la. kon nañ góorgóorlu nun ñëpp. waaw nee nañ góorgóorlu nun ñëpp. te jéem faj li nu dal. te jéem a faj li dal. te te tëlatuñu dara. tëla tëlatuñu dara. tëluñu sunu borom. tëluñu sunu borom. tëluñu alaaxira kan jëm. tëluñu alaaxira kan jëm. loolu kan ñun ñëpp ko bokk. nee na loolu ñun ñëpp ko bokk. kana ci yoon wa. kana ci yoon wa. ma ngay xeeb doxinam. ma ngay xeebu doxinam. ka nekkul ci yoon wa ci yoon wa nag. moom la ko jàpp. moom la ko jàpp. da koy gën a jàpp rek. da koy gën a jàpp rek. gën koo lot rek. gën koo lot rek. wax ji. Mm-hmm. wax ji. ñun ñëpp ko bokk. ñun ñëpp ko bokk. waaye. waaye. ñu ci ne xam ku ci ne xam nga sa bopp. ku ci ne xam nga sa bopp. nan wattandiku rek. càggante nan wattandiku rek càggante. dañuy góorgóorlu suñu kem kàttan. dañuy góorgóorlu suñu kem kàttan. ñàkk xam rek waaye jaamu yàlla jafewul ah ñàkk xam rek waaye jaamu yàlla jafewul julli waxtu yu juróom julli waxtu yu juróom di ko jéem di ko jéem xam ne loolu mooy sa xam ne loolu mooy sa wartif mooy sa njëriñ mooy sa njëriñ nga di ko jéem sa kem kàttan di ko jéem sa kem kàttan diir bu gàtt diir bu gàtt nga tàmm ko nga tàmm ko te ginnaaw la nga ci doon jéem yàllaa tax gannaaw la nga ci doon jéem yàllaa tax boo ko tàmmee boo ko tàmmee dootoo ko ñàkk a def dootoo ko mën a ñàkk def loolu moom la jéem di indi loolu moom la jéem di indi lépp lu baax lépp lu baax boo jéemee boo jéemee te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow loo gën a jéem loo gën a jéem gën a mën gën a mën lépp lu bon lépp lu bon boo ko bañee boo ko bañee donte mucc muccaguloo ci it donte muccaguloo ci it gën ko ragal danga ko ragal gën ko wattandiku danga ko wattandiku gën caa gën a jéem mucc ci lépp lu bon gën a jéem mucc ci lépp lu bon dund gi yëpp dund gi yëpp loolu rekk loolu rekk ci nekk loolu rekk ci nekk kon nan góorgóorlu bu baax kon nan góorgóorlu bu baax suñu kem kàttan suñu kem kàttan tënk bi moom tànk bi moom mooy góorgóorlu ci njub mooy góorgóorlu ci njub góorgóorlu bu ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci jëf lu baax te yàlla bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax loolu loolu nan jéem bu baax a baax lan ko jéem bu baax a baax a baax jéem googu nu koy jéem. goo jéem googu nu koy jéem. te muy dëgg ci nun te muy dëgg ci nun nag. di ko jëfee. ñu di ko jëfee. suñu kem kàttan. suñu kem loolu rek. loolu rek. lan mën sant sëriñ bi. lan mën a sant sëriñ bi. am nañ tawféex ba am nañ tawféex ba noppi. waaye nag. waaye nag. nekk ci lu nuy may ngërëmul sëriñ ci lu nuy may ngërëmul sëriñ bi. moo gën a dal xel moo gën a dal xel sëriñ bi sëriñ bi bëgg lu dara bëgg lu nu dara lu lu li mu bëgg rek te moom bëggul dara lu dul yàlla yonent te moo te mooy bëggul dara lu dul yàlla yonent bi nekk ci dara lu yàlla yonent bi musta nekk ci dara lu dul nekk ci yàlla yonent bi lu mu ca dolli yërëm jaam ñi bëgg leen bëgg leen a bëgg leen a gindi bëgg leen a womat jëme leen ci seen borom lu mu ca dolli mooy yaram jaam ñi bëgg leen a gindi bëgg leen a womat jëme ci seen borom kon noonu rek la demee de kon noonu la demee dañu góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi ci li nu fi indi suñ borom moo nu bind moom nu moo suñ borom moo nu bind moom nu moo nu fi wàcce moo nu fi wàcce sant nu di ko jaamu sant nu di ko jaamu loolu mooy sunu warteef. mooy sunu loolu mooy sunu warteef. amul leneen leneen lu nu jikk. amul leneen lu nu jikk. loolu dong lu jikk. loolu dong lu jikk. kon góorgóorlu rek moom la laaj. kon góorgóorlu rek moom la laaj. nan bu baax a baax a bu baax a baax baax a baax. ginnaaw nun sëriñ bi rek. mooy sëriñ bi rek mooy sunu lépp. moo war a doon sunu dund. moo war a doon sunu dund. danaa di wax sëriñ bi moom danaa di wax sëriñ bi moom yoon wi alhamdulilah yoon wi sori na lool fa tabarakallah yoon na lool waaye ci sunu wàll waaye ci sunu wàll nun jaam ñi nun jaam ñi suñ diggante ak sëriñ bi suñ diggante ak sëriñ bi bëgg gi bëgg gi. ak doyloo gi ak doyloo gi. fu yoon wi àgg looloo ko fa àgg. fu yoon wi àgg looloo ko fa àgg gale. waaye nag xamuñu sëriñ bi. waaye nag xamuñu sëriñ bi. dunduñu ko itam nag. dunduñu ko itam. fii nu toll. fii nu toll. bu nu góor bu nu di ko gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a dund. di ko gën a dund. kaw rek la muy jëm. kaw rek la jëm. alhamdulilah ñin ko bokkal. ñin ko bokkal. muy sunu moroomi jaam. muy sunu moroomi jaam. ñun ñooñ sëriñ Tuubaa ñii. ñooñ ñooy sëñ ñooñ sëñ Tuubaa ñii. bu nu góorgóorloo. bu nu góorgóorloo. du ñu ñee kenn. du ñu ñee kenn. te dañu ñee rek. te dañu ñee rek ci biir ak ci biti. biir ak ci biti. tey jii ak ëllëg. tey jii ak ëllëg. kon la. la. loolu rek loolu rek. waaw loolu rek nag moom. koor gi koo sellal. koo sellal. suñu kem kattan. suñu kem kattan. nañ ci góorgóorlu bu baax a baax. nañ ci jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na mi di la waaw